en 1968 avant depuis c'est Hadj Malik. mais puis, en 1968 ñu war a gàmm fekk ni Babacar en 57 bi ñu est gàmmu gàmm tombé avec la grève des étudiants qui Sénégal mais la grève de 1968 le président Zengor au oh Sénégal, Cheikh Al Maktoum xamal ko ne ko kat ñun membre yi ñu yor ci soldaar sax ci service d'ordre ñu sax surveiller Dakar doyuñu kon gàmmu Tivaouane ni mu rëy amuñu ran ay membre ay soldat ay euh, service d'ordre boo xam dana ko mën a taxaw kon daal li ma ci xam man sax mooy ngeen fomm gàmm gi sëñ Cheikh na ko ëpp naa def gàmm gi buñ ko naree fomm yow booy boo takkal say bagages ci ni ñu ko mag ñi nettalee fekke wuñ ko de mag ñee ñu ko nettalee sëñ Cheikh daal li ñibbisi ñew au sëñ Abdou Aziz si Al Amin ak wayam bu bax ji ñu wax El Ibrahima sam ak mag mag ñu tedd ñooñu ñu bokk tok waxtaan mbokk tok waxtaan ñu daldi ñu daldi ci tang tang bi lañ daldi taxaw gamu tiawon ut juróom-ñaar fukki sëñ Cheikh ne leen soldats yi ay goor lañ yeen ay goor ngeen ñu daldi ut juróom-ñaar fukki nit ak ben moy lif alif lam mim bi lif 1 lam 30

am ñu a le mot COSCAS comité organisation au service de Cheikhul Khalifa Ababacar Sy takk der yi ñoom problème xanaa sant leen gërëm leen leen ndax dañuy jàppale dañuy jàppale lool ndax loolu lu ñuy wax CRD la CRD ba ak CDD lañ koy waxtaane gendarmerie day police day parce que ils sont là pour la sécurité et pour l'ordre sécurité ordre moo leen fi indi ñëwuñ fi pour dóoraate ñëwuñ fi pour gaañ kenn mais dañu fee ñëw pour képp koo xam ne yaa ngi bëgg def naka sadul noonu di jël àll jàmbur maa ngay def àll ñu téye la fu ñu xool xam ne fii ma am na fi nit ñi mën nañoo gaañante ñu ñëw jàppalee ñu taxaw loolu kat moo fi seen moo fi seen liggéey ñu di leen sant leen gërëm te xam ne yàlla leen yàlla fay mais bi ñuy taxawoo gàmmu gi macha allah li ñuy dimbale Coskas te nag dañu ñëw ba ci yow ne le cap ñun de ñëw nañ seen gannaaw lañ top nu ngeen ko bëggee non la ñuy laaj de nu ngeen ko bëggee ñu leen ni ak nii ak nii def leen nii def leen def ni nii ñu topp lañ leen non fi mu ne nii à peu près mënu ma wax exactement ne la nangool mais xam naa dépassé nañ 4000 personnes ba 5000 nous sommes entre 4000 et 5000 personnes mais mënu ma wax chiffre exact kooku bureau national ku mel ne Ousmane Samb wala secrétaire national. mais je suis persuadé qu'on a dépassé les 4000. Nous sommes entre 4000, entre 4000 et 5000. السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله